Oui, Momo. comme ni mu leen ko waxee tey du ñuy maye tey ci nan leen di demee euh, passé seen tabaski ak seen kër goro ndaxte gis nañu nekk jeune marie yi dafa diis lool ndax du dañuy gis ñu leen ci jiitu di rencontrer ay jafe-jafe jafe yooyu nag suñu leen ci indilee ay solution dana leen dimbali ba seen tabaski oyof si yéen euh, lool dana war a xam ne benn yoon ci at bi na dem partager ko ak saay goro ak saay frère jëkkër loolu bégte la dafa war a nekk lu xamante ne waroo ko jàppee comme lu diis at la invité au moins dana la permettre soo amulee temps di invité sa kër au moins nañ def ko en famille famille boobu nag seen parent yi ñoom lu ñu ci gën a bëgg mooy gis nekk yéen a gi nekk si jàmm di def tâche domestique yi si jàmm ak salaam di kaf di ree nañ di avancer ndànk-ndànk ci euh, liggéeyu xar bi ak togg yi moment boo leen di séddale na ñu gis leen tamit nañ dëkk toujours ci euh, jàmm di signe di kaf di ree loolu moom la ñuy wax tabaski bi neex na lool mais su fekkente nañ ko koy paase di fuñ fuñaaral di mer di def yi ay sew di teesante ay wax loolu dafa nekk lu xam ne rafetul te lu koy indi mooy li neen bëgg lan amul ñenn ñi ñu ñu ñàkk mooy yére ndax dañu doon bëgg su ñu nekkee seen kër goro yi di sol di simmi di wane wu que macha allah jekk nañu am na ñeneen ñi nga xamante ne seen problème moom mu ñu nekk ci li ñu bëggoon yóbbaale ak ñoom seen kër goro ndax dañuy bëgg defar bu mu baax dañuy bëgg seen marché mat lool donc suñ ko amulee rek euh, seen journée day naqari si ñoom ndaxte du ñuy wut toujours leen di dooleel fépp fu ñuy jëm ñeneen tamit seen problème mu ñu nekk ci séddale xar bi euh, ni ñuy séddalee xar yi suñu nekkee kër goro yi daf leen di metti lool ndaxte am na ñu xamante ne duñu mun sax yóbbaale at yàpp seen kër ndax lépp duñ koy jël def ci lu leen neex ndax ñi nekk ci kër gi di jëkke yi ak seen euh, belle ñoom ñooy jël initiative ci ni ñuy séddalee ci des fois nu ñu koy doxalee dafa rafetul donc day metti si ñoom euh, le fait que ñuy jënd seen xar bu cher ñëw te bunuñu ci yóbbuwaat lenn lu xamante ne day dem seen kër donc yooyu problème mooy problème majeur yi femmes di rencontrer suñu dem sëyi seen suñuy dem tabaski di seen kër goro maleen di xamal ne muñ leen ndax benn yoon ci at bi na jël yàpp euh, partager ko ba mu jeex sa kër goro yi ak sa frère jëkkëre warul a metti ndaxte sarax rek la jàppaleen leen loo leen def ci xar bi sarax la lépp lu mun ti génn ci xar bi dem ci ñeneen sarax la ti sa kër goro war na mun partager ak ñoom ay teraanga yi mag a mag ti mu bañ yem rek ci ay yebbi war na mun partager beneen euh, bànneex bu dul yebbi rek ci sa génte beneen bi xamante ne ay sañse la danañ war a gën a oyof xam ne euh, sa sañse du benn bés na ñàkk sol plusieurs fois mooy tax yow ñuy gis ne dana rafle wala mënoo solo benn bés munu ko yàq donc sol leen li leen am li am solo mooy daami naa leen ko ba mu baax nañ fóot ko fóot bu set daamina soo leen koy solaat day beesaat li am solo mooy ñu gis ne c'est bien repassé ak set na donc yére boo leen yàgg am seen armoire solo leen ko lu bëri mën nañ ko jël liggéeyee ko seen kër ni am problème mu tàngoor ñoom mën nañu sol yére yu oyof moment bu ñuy liggéey ak moment bu ñuy waaj a yekkale ñuy dem changer wu solaat seen beneen yére donc c'est pas forcément yére yi bees mooy tax na am buzz ci sa bësu tabaski loolu bu mu nekk contrainte ci yow ñi nga xamante ne dañu am problème ndax dañu bëggoon indaale ak ñoom dugg bu bëri te mënuñu ko ñu loolu tamit nuñ ko mottalee ak kaf ak ree ak waxi neex ni am loolu lañ mënti am xamal ne mën na neex l'essentiel mooy nooy waxee nooy euh, indee waxtaan bi kaf bi ree bi ak nooy toggee loolu yëpp day mottali li amul waaw soo leen amulee boisson yi ak entrée salade yi c'est pas grave na marinade bi jaar yoon neen boole ko ak yàpp loolu ku ci tombe kese day kontaan. est-ce que amul amul lu ëpp solo sax ñoom xale jigéen ñi pour ñu xam ko vie vie vie bi ñu am en famille. bisu tabaski bi retrouvailles est-ce que ëppul solo ay sañse euh, xool ba xam maa kii ñoo dàq. man je te rejoins loolu moo ëpp solo parce que defe naa euh, tabaski à la base du du loolu quoi. mais jigéen jigéen dafa xat jigéen dafa siis. Ah. jigéen ñi dañu tàmmatul euh, partager dañuy gis dañuy màgg ci famille yi léegi nag ñu war a dem ci famille bu mag dañuy tiit dañuy ragal duñu xamante lu ñu war a def xam na soo nekkee sa kër ni la neex ne liggéeyee heure bu la neex ne commencé heure bu la neex ne pare alors que léegi on un en groupe ku nekk dafa war a jël benn partie liggéey donc foofu dañuy ragal dañuy coincé wu léegi nag seen défaut yi la ñuy bañ ñi gis défaut yooyu ñuy bañ ñi gis moo tax day diis ci ñoom suñu demee parce que faaw force on va voir seen manquement seen yéexaay seen ñàkk mën organisation seen ñàkk mën sax togg loolu yëpp dafay feeñ famille loolu nag moo leen di sonnal ba toujours ñu ñu wut dee bâtons sur les roues di wax seen jëkkër bëgguma dem di indi toujours ay sikki sàkk pour rek euh, loolu dak mm-hmm. beneen problème bi oui lii dafa neex moomoo moom laay wax ma ne leen këpp ku jàng diine xam bu baax sa diine war na xam ne retrouver wu en famille am na ñoo xam ne amuñu temps di invité seen kër mm. donc tabaski su jotee vous tu te ak sa beau frère yi sa belle sœur yi donc bégeel defal lu xamante ne dafay neex lool su ko defee vraiment at ba at mu nekk ay souvenir xale yi jàng mm. xam ne ambiance bi la ñu war a euh, roy bu leen tiit beneen bi gën a neex bi nag moom lay tëjee mooy ñi nekk ci polygamie war a tase ak seen wujju yi boobu tamit problème bu mag la ñi bëri war a tase ak seen wujju seen kër goro yi day nekk problème am na nga xamante ne sax duñ leen di wax ne kaay ñu dem tabaski kër aaw bi. donc loolu dafa nekk lu diis ci ñaareel li ma leen di xamal ne muñ leen ngir yàlla benn yoon ci at bi neen retrouver wu en famille lan nañ war a seq lu dul jàmm amoo leen pour di wane wu di wane man la ñu gën a bëgg foofu c'est moment di wane man la ñu gën a bëgg li leen war a gën a wane mooy danañ am le sens de la générosité danañ nangu bokk partager te danañ war a wane seen bëggeel ci famille wu seen jëkkër mm-hmm. il ne s'agit pas de vous les pouse yéen ñaa ñëpp yéen a tolloo bés boobu danañ war a wone euh, seen amour pour seen belle famille. ak seen générosité donc loolu laa leen doon may tey ci euh, tabaski bi noonu lañ koy passé ak seen goro yi. Mm-hmm. devant toutes les difficultés possibles. am na solo Kira voilà, xam naa on se retrouvera mardi. mardi inchallah, prochain incha ci euh, yeneen i astuces yu ci wàllum séduction Mouhamed Ajaratu jotul woon nuyoo. Mm-hmm. fi mu ne nii mën naa nuyoo. woy Adja Dame li ma am. xam nga nu ma la tuddee étoile bi ci drapeau yaay Sénégal de yow. tey daa yëngu de. la am ci de. xaw ma ki ñëw kan la. Ah. waaye ñëw moom daan daan ak doole tey ki ñëw ñëw ak lak daar. ñaar ñee ñëwandoo ak Kumba ñett. ñett yëpp loolu kenn attanul loolu. Ah, ah. moo tax tey gis naa la da yëngu. Hmm. gis naa la nga wax bu fëgg taam. te sax ñëw na. ñëw na tey. waaw waaye kenn du tudd turam. déedéet bu jarul tudd turam kooku moo ma doole. ana Kumba Kastel egg wul. maam Kumba Kastel xam naa sax yegg si na. waaw. <laughs> Adja Daba nuyu nañ la. ndeysa moom maa ngi lay fay. Eh. di la kontaane. cekkaalo bi ñu jàkkaarloo ci plateau bi tey eh, yàlla di ko dogal chaque jeudi chaque mardi eh, may nuyu na fi jee sa jigéen di nuyu waa plateau bi yëpp di leen saar